salaamaaleykum internet bu Sénégal alors tey ñu am mbégte dalal fi koo xam ne nag euh, temps yi génnee na clip bu doy waar boo xam ne nag dinañ ci am temps waxtaan si muy lu ne dan dan kenn dootu ko présenté moo bokkoon ci The Best Family tey mu ñëw seet suñu biir Sénégal ñu war a waxtaanee ci carrière nag euh, dan ma bàyyi la nga nuyoog internet yi ak say fans. bon asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum euh, yéen waa Sénégal di nuyu képp ki nga xamante ni yaa ngi suivre waa Sénégal di jiital nuyoo bi samay waajur sama papa ak sama yaay ak ki nga xamante ni mooy sama grand frère mooy sama ménagère di sama lépp ah di nuyu fans club bi tim dan bi nekk Pikine Guédiawaye su ma limee rek juum waaw alors Dan kenn dootu la présenté artiste artiste bu mag nga yàgg nañ nga xam depuis seen petit gàlle mën nañu ñëwaat un peu sa sa sa parcours sa début euh, musique lan moo xëy rek nga ne donc ma bëgg nekk artiste bon musique bi nag mun naa ne <laughs> dafa maa dab parce que sama sama sama famille man teg maa koy way xam nga mu nekk loo xamante ni bëgg naa ko depuis seen petit foofu laa njëkkee yéeg sur scène way nit ñi déglu affaire yooyu noonu mais xam nga tataangoo yi ma koy nuyu de passage moom moo tax tey jii ma bëgg a way mën naa mun naa wax loolu parce que liñ doon dund dafa neexoon tellement mooy loolu loolu tax ma dem ba à la fin ma bëgg a way ban saison nga bokkoon seen petit gallé. 2015 la woon 2015 la woon. Uh-huh. moo tax moom moo moo moom moo tax ba ma. non dama dama dama moo tax ba ma bëgg musique. Mm-hmm. depuis lors maa ngi ci dem samay waajur tamit comprendre ma dama ci jàppale franchement début bi ñu ngi doon bañ mais après <laughs> soo génnee benn son ñaari son rek xam nga. affaire yi neex sénégalais yi xam nga dañ lay commencé encouragé di la ñaaral xam nga ñu gis loolu noonu yëpp tamit. mais seen petit gala bi ñu delluwaat un peu en mhm. euh, comme sa parents yi dañ doon bañ euh, début bi nan nga def ba bokk ci. début bi. nan nga defoon ba bokk ci compétition bi. bon début bi nan laa defoon ba bokk ci dama doon toog rek gis xale yi di way. Mhm. xam nga affaire bi neex ma ma ne pourquoi pas ba xam man benn jour munu man mënumaa dem bokk ci émission bi. mais nan nga xamee nag da neex baat fan nga njëkk a wayee nag franchement nga xam ne yow sa baat neex na. bon man nag euh, neex moom mën naa <laughs> que moom baat dafa neex da nga mhm. jékki-jékki benn uh-huh. man nag maa ngi doon def euh, ay kii dama doon jàng ay xasida di def ay. bon di def ay sikar affaire yooyu noonu mm-hmm. ba par la suite xam nga xam <laughs> musique bi nan la la kon. bon musique bi nag dafa nekk benn affaire teen affaire bu ma neex quoi en fait mm-hmm. xam nga ma xam ni naa cee mën a am dara xam nga c'est ça ba ñëpp apprécier woon ko. bon man maa ngi njëkk reprendre son Youssou Ndour mm-hmm. doole seen bërigaale. est-ce que mën nga si ñëwaat tuuti rek mais ma si tuuti rek fàttali ko un peu. Euh, ñu def. Hmm. jaay doole baaxul ak ci lu mu mën na daan. alors way boobu nga njëkk a way way boobu. nga njëkk a seen petit gàlle nga dem si compétition bi fan lañ la éliminé wala da jël. dama ñëwaat ñëw demal. waaw demal. si man nag bi may dem seen brigale mm. euh, maa ngi amoon euh, ay quinze ans mais xam nga boobu loolu xam-xamu musique doo xam da ngay jàng rek xam nga ci laa demee par la suite ba ñu may éliminer quart de finale mm-hmm. ñu ngi éliminer quart de ok est-ce que jàppale na la lu bëri sa musique tey sa passage boobu waaw seen pëdigaale moom def na lu bëri ci man mën naa ne moo commencé sama carrière quoi mm-hmm. moo commencé sama carrière ok nga jóge seen petit gàllé après ñu ñëw. Mhm. gis la si The Best Family. Mhm. Hmm, dañoo jékki-jékki ñëw gis la ci groupe boobu noonu foofu tamit intégration bi nan la woon fan lañ la gisee ba ñëwee ñëw mhm. boole la euh, loolu yëpp ay école la rek. parce que c'est des passage parce que tey jii képp kuy euh, képp ku am loo bëgg wala nga dem ba nekk fi dara tey jii dafa am foo jaar te ay jaar-jaar la dañ lay jàngal xam nga. dañ lay jàngal dañ jàngal ay école la waa mhm. sama intégration GBS nag euh, mbiru yàlla la <laughs> parce que benn jour laa gis benn statut rek ñu dugal euh, benn son GBS affaire bi neex ma ma contacté ko mhm. moom tamit mu nekk grand bu baax par la suite ma contacté ko dem këram mhm. moom tamit mu apprécier ma déglu sama son ne ma carrément affaire yi mi ngi nice te bëgg naa ñu liggéey tout ça man tamit ma bëgg liggéey ak moom parce que dama waroon woo di ko sonal affaire yooyu noonu ba par la suite ni ñuy liggéeyee. Mhm. loolu ma dugal Tefess. nga dugg fa tamit nekk seen feeling ba damay wax rek de. <laughs> parce que yaay feeling ba nag de. dëgg la yaa si ëpp bruit yaa si ëpp buzz. Eh. Ah, nga dugg si the best. public bi mm. lañ la accueillir nga ñëw début bi premier way deuxième way daan daan daan nan nan nga gisee loolu noonu succès boobu bu gaaw. xam nga loolu yàllaa koy def ci nit mën naa ne yàlla moo ko def ci man mm-hmm. parce que nit a ngi ne di dem rek loolu yàllaa koy def ci nit mm-hmm. loolu kenn mënu ci dara mm-hmm. te buñ la bëggul tamit <laughs> safaan ba lañ lay def rek dañ yàlla ñu bañ la waaw dina wax ni tamit ñi ma ñi ma suivre maa leen raw lu bëri nit ñi topp sa tur bi bokk nga ci ñu ci gën a remarqué uh-huh. lépp day ànd ak maîtrise rek parce que boo nekkee si milieu boo xamante ni dafa doy waar da nga siy ànd ak eh, ñoo xamante ni ñoo la ñoo la mag doo demee doo doyloo sa xelu bopp danga may da ngay da ngay waxtaan ak sa famille di waxtaan ak sa yaay di waxtaan ak sa papa doo doyloo sa xelu bopp doo dem rek ne xam naa mhm. da ngay waxtaan ak ñoo xamante ni ñoo la jege surtout ñi la jege ñi lay entouré parce yaakaar naa tey ji xam nga ñoom duñ la <laughs> duñ la gaañ quoi. Mhm. dugg ci musique musique rek nga yem wala am nga da jàng wala am na mhm. yeneen. bon maa ngi nekk Golden Service foofu ñu ngi fay def ay transport logistique mm-hmm. ak yenn affaire yu bëri xam nga ay lavage di structure affaire yoo xamante ni partout Sénégal fii nii foo dem rek da nga fay gis Golden Service quoi. Mm-hmm. si après ma delluwaat ci The Best bi. Mm-hmm. nga dugg fa première chanson deuxième chanson yaa fa njëkk indi buzz. yoo xale jigéen doy naa xeex nañ ndax yow dan ay problème euh, nga dundee loolu est-ce que attanoon nga temps yooyu coow dan dem ba indi ay wax yoo xam ne genre ay image ay vidéo mhm. yëpp dal sa kaw est-ce que attanoon nga loolu en tant que jeune bon loolu du dara rek lu dul euh, sant yàlla la quoi mhm. parce que tey jii xam nga parfois mën naa mën mën nga mën nga bañ a def dara toog sax lu ñu li olof njaay naan weex dung jël dara boole la ci walla affaire yooyu noonu mhm. situation boobu nan nga ko dundee woon est-ce que metti woon na si yow jàpp sa tur ñaan jigéen ñaa ngay xeex ndax yow. Mm-hmm. xalaa da nga tiitaru ci clip bi yëpp. ci clip bi di doon kii di leen xaw a xam nga xale jigéen ñoom boo lamsalee rek ñu daan <laughs> ay xeex. Uh-huh. loolu est-ce que métti na ci yow. comme li ma la wax rek. Uh-huh. diwa ngi ne dem loolu yàllaa koy def si nit. Uh-huh. kenn mënu ci dara. ñi ma bëgg nag maa leen raw lu bari maa leen gën a bëgg parce que aw seen fay. aw ma seen fay de. muy samay fanse ñi may bëggee surtout jigéen ñi samay jigéen lañ mais góor ñi sax samay xarit lañ <laughs> non jë góor dégg naa dañ lay mere de. non <laughs> dégg naa nangu nga kii wu yi yëpp. dañuy gis naan la waa dan moom dan rek ñun la fase naa la <laughs> bàyyi naa la <laughs> nañ bàyyante. ah c'est normal gentleman la wala yow gisoo loolu. yaa ngi tiitaru ci clip yow yaa tiitaru ci clip bi yow yaa tiitaru ci clip bi di leen charme alors loolu épisode boobu mu jàll fi nag defoon na fi buzz bu bu doy waar. Mm-hmm. nga ñëwaat indiwaat beneen clip ak the mm-hmm. best. Mm-hmm. the best encore the best. Euh, tey jékki-jékki. ne dara gisatuñ ko ma gis benn clip boo xam ne lu ne la mu mhm. génn après dinañ ci ñëw waxtaan ci carrément mhm. euh, lu ne dem ko def ko sa chaîne YouTube euh, lan la qu'est-ce qui se passe avec The Dan bon Dan ak The uh-huh. Dan ak The muy particulièrement waa The Best Family di samay frère mhm. franchement ñu yàgg trop jotewuñu dara jotewuñu dara dan bu jël carrière solo bokkul ak euh, The Best Family dara bokkuñu dara parce que tey jii dan lu mu war a def the best mi ngi dem di ko def tey jii bu mu waree def dara ak ñoom damay dem ma def ko pourquoi pas parce que tey jii dan génn the best loolu c'est dur quoi. Mhm. loolu mënu sax nekk parce que bokk naa su ma su fekkee bokk naa ci ñi ñi ñi fondé groupe bi. Mhm. bokk naa ci ñuy defar groupe bi ba tey jii xam nga mu muy muy may keneen ak keneen li mu am ba ci yeneen booy yi génn foofu c'est dur. samay frère lañ. samay xarit lañ franchement là-bas c'est ma petite famille wala là-bas franchement là-bas petite famille. kon yow nit ñi di euh. wax ni da nga génn sa best family. c'est mhm. pas information boobu noonu. <laughs> dan génnul sa best family de. génnul sa best family. mais dan mais dan mais dan dafa jël carrière solo. mais est-ce que yaa ngi groupe bi ba tey. maa ngi ak groupe ba léegi parce que bu ñu ma soxlaa damay jug dem defi dem defi ko. waaw léegi kon yow sa clip bi lu tax nga demee defee ko rock team mhm. euh, ñoom ñoo la tourné clip bi mhm. genre yooyu noonu pourquoi jëloo sa best moom mu def yooyu d'autant plus que moom loolu si loolu lay liggéey uh-huh, uh-huh. bu fekkee génnoo ko uh-huh. man nekkuma rock team d'accord waa rock team man je travaille avec eux mhm. parce que euh, tey jii mën naa xool ku ma neex ma liggéey ak moom parce que tey jii dama opté naa jël sama carrière en main damay xool xam nga ñu ma mën a liggéeyal ma liggéey ak ñoom tey jii Zbest moo waree liggéey ak moom am na yeneen projet ak moom damay dem ma ko pourquoi pas. génnoo Zbest ne dangay jël sa carrière en main dinaa la topp nga sës de. <laughs> ak Zbest ça n'a rien à solo ak Zbest ça n'a rien parce que su ma su ma waree def dara. damay dem ma dem def ko foofu. mais Zbest moom mi ngi jël ay yenn éléments yu bokk Zbest famille di leen defal son gis naa si kenn ku ci génnee son. si. pourquoi yow ñoom def ñu ko ak yow. bon peut-être euh, ñi fa booy yi fa nekk samay frère ñoom ñoo. opteegul def seen carrière solo. mais ñoom benn son ñoom solo lañ ko génne ñoom uh-huh. kase ñoo génne Bilal la xaw ma je sais pas. ah, ah génne na benn son moom sa best moo ko defaral son bi. moo ko defaral son bi si waaw. si te xam naa léegi mu génnee clip bi moom it. <laughs> mais bon comme li ma la rek moom comme opteegul. am na lu xew. Uh-huh. li xew da nga ko wàññi wax. mais am na lu xew parce que man je trouve pas ki may liggéeyal kay. Mhm. moom moo war a lépp wala. barki Serigne Touba dara xewul. dara xewul barki alxuraan. ah man nag li ma dégg mooy. Uh-huh, uh-huh. dama def sama thèse man après nga wax ma. li ma noonu la woon. <laughs> dégg naa yéen uh-huh. amoo leen dara ci way maanaam genre euh, dañ des abestes dañ leen exploité. non pas ça pas ça pas ça pas di génnee buzz loo leen génnee nit ñi apprécier ko. <laughs> bul wax loolu même su fi amul dara sax am nañu fa loolu. suñ fa amul dara sax am nañ fa loolu. succès bi am ah, nañ fa succès bi suñ fa amul même suñ fa amul dara. parce que tey jii mais parce que parce que tey jii kuy liggéey rek bon mënoo commencé rek nga ni da ngay am dara mënul nekk. da ngay liggéey di rampe di rampe di rampe di rampe. Ah, sa yàgg na de. <laughs> yàggul de. <laughs> yow bëgg ba sa mu ngi bëgg a yàgg. yàggul de dañuy mais est-ce que ngi si am dara. à part succès parce que loo liggéey tamit loo siw siw siw. ba pare jël karando wala karapit. te ñu xam dan ak mu kii. xam nga lépp xam nga lépp loo gis rek xos xoslu la quoi. mais est-ce que yéen a ngi ciy am dara. waaw yow yaa ngi ciy am dara foofu foofu laay ñëw. xam nga lépp loo gis rek sotti ci ak def ci la quoi. parce que Zbest ñun dañ dañ doon dañ doon dañuy ànd. ànd bu ànd bu ànd bu rafet su ma nee ànd bu rafet parce que lépp luñ gañee dañ koy defaat ci Zbest. lépp luñ gañee dañ koy defaat ci ZBest loolu mooy waral tey jii ñu ñuy génne benn affaire muy muy muy def bëm Sénégalais yi di ko bëgg. Mm-hmm. looloo ko waral parce que tey ji soo jëlee dara gañe ko lekk ko <laughs> après da ngay toog. ok kon yenn xaalis bi taxul. bon xaalis bi taxul ñuy ànd. Mm-hmm. xaalis bi taxul ñu ànd franchement. te bu doon gisee ñu uh-huh. fa génn ñu ñeneen ñi dégg naa am na ñu génn. ak mm-hmm. noonu. demoon ba xamante suudewu am ñuy dem am ñu décider lan. Mhm. est-ce que loolu affecté xam nga fii Sénégal dañoo baaxoo benn affaire mooy lan nit bu nekkee fenn ba nekkatu fa rek non dañu naan dañoo jot ak ñoom walla dafa am lu xew seen diggante dara xewul man tey jii pourquoi pas moom sama yëfu bopp pourquoi pas ma liggéey. comme les comme comme comme les comme les autres artistes. Mhm. comme ni ñuy liggéeyee ma liggéeyee noonu am sama yëfu bopp di dox samay business. ku ma doy ma jox ko ne ma am defaram lii nangam wax nangam du tee ak sama relation bi moom ak waa Zébès day day day daw ba léegi di ko nuyu de passage moom bés di nuyu sama papa Matar Diop suba teel ak Souleymane Awalaay tey jii su ma demee ba am fitu di jël sama carrière solo wala tey jii may jël sama son di ko composer wala di ko bind c'est grâce ils ont beaucoup fait de moi quoi en mhm. ma def lu dul remercier leen parce que. xam nga daal ñiy wax mhm. Mhm. da nga génn sa sa carrière bopp c'est pas vrai ba yaa ngi fa mais teewul maa ngi foofu mais teewul maa ngi def sama carrière carrière solo boobu nag gis nañ ci benn clip bi doy waar comme je dis clip bi rafet na image yi macha allah lu ne bi pour euh, chanson bi mën nga ko indiwaat mën nga ñu si waxaat composition bi lan moo tax nga njëkk génnee son boobu. mu génnee son bi lu ne bon lu ne lu ne lu ne. lu ne. chanson d'amour la. chanson d'amour la quoi trahison wala. trahison la quoi jaraloon nga ma lu ne en fait. Mhm. <laughs> trahison la. Mhm. en fait ma bind euh, texte bi. Mhm. xam nga créé tama mélodie. waa Rock Team jàpp ci affaire yi quoi. franchement jàpp nañ ci affaire yi jàpp nañ ci texte yi di faral di dindil fii xam nga. ñu jàpp ci affaire yi carrément quoi je les salue de passage surtout imam moo tourné affaire bi. ay gars yu cool vraiment toute l'équipe de Rock Team quoi maa ngi leen di shout di leen bëgg. ah wanoo ah? ko sa bés kontaan naa ah wanoo ko sa bés xanaa mu non il m'a appelé woo na ma dama affaire yi mi ngi naan strophes xam nga ñaanal ma affaire yooyu noonu te loolu moo ko war quoi. Mhm. loolu moo ko war parce que tey jii moom dina kontaan di ma gis may dem wala tey jii dina kontaan di gis may génnee clip. même pas xam nga deux jours sax cent cent mille plus de cent mille de vues sur YouTube. Mhm. xam nga loolu liggéeyam la quoi. Mhm. xam nga loolu mbégte mbégte la ci moom quoi parce que dina ne ah lii kat sama élément la. Mhm. loolu ça benn photo buy daw ci réseaux sociaux yi. ngay bisu woon yow dan daa dawoo coow. Nimzi dawoo coow moom nga wax yow dawoo coow de. <laughs> photo boobu lan la sa sa copine nga jël ci clip bi wala da ngeen doon good buzz pour attirer. non pas ça. sa copine moo nekk <laughs> ah, si clip. ah mais bisu ba nag. <laughs> non loolu sama vie privée sa vie privée mais sa copine la kooku. non déedéet bul bul wax bul wax <laughs> yow dafa la nii rek wala nii rek. non après gars yi dinañ comprendre. non. non. waxal rek. sama vie privée la. loolu dama si si damay choisir dama si toog. mais kon photo boobu du du du buzz. du buzz ah, du dara. bi génn na. comme je rafet na montage bi woy bi macha allah. Mm, mm. eh, lan mën a xaaraat si loo xam ne dan dina ko génnee si solo. Mm-hmm. fii ak deux moom bu ma gisul The Best génnee te bokkoo ci dinaa la woowaat nga ñëw. <laughs> Hmm? amul benn problème non loolu moom. loolu loolu moom xaar leen ko parce que man. Mhm. foofu mënu ma leen bañal dara. <laughs> suñu ma woowee dama ñoqali dem ba foofu. Mhm. def liñ ma sant dem parce que ñoom ñoo loolu quoi. Mhm. te teraanga rek lañ ma ci quoi te man noonu laa man boo ma jiyee teraanga dama lay fay teraanga. su may def dara nag def ko ci defin bu rafet parce que xam nga rek. fi àdduna la quoi mu nice quoi xam nga ay dem fii xam nga amul sens quoi. amul sens bon. mais boo xëyee ñu woowatuñ la si kii. non ñu ngi déggoo. ngeen ñu ngi déggoo. waaw ah, kon baax na mu ne clip bi nice na. Mm-hmm. vidéo bi leer na ak yooyu mm-hmm. noonu. Mm-hmm. gal bi rafet na. tu vois <laughs> léegi wax expliqué nga un peu thème bi trahison nga dégg lan moo tax nga bind boobu way boobu par exemple. bon xam nga léegi loo dundul rek mënoo ko nettali. ah da ko dund. <laughs> ko dund mënoo ngay nettali. <laughs> sama sama mbokk góor yi laay taxawal fii quoi ñi ñu ñi ñu trahir ñoo xamante ne. dañoo mës a trahir <laughs> ok. donc foo. daan xale yu jigéen ñi la xëccoo ñu lay trahir. dama ko dund ci ay gént quoi. <laughs> si gént nga dund affaire ci ay gént laa dund bi mu demee woon trahison bi. bon. ci gént laa ko dund daal ah, gént bi ak non ci laa yow jàpp yow loolu rek ci gént laa ko dund bi daal trahir nañ la si ah, ah. ok moo tax nga xëy nga bind nga bind chanson bi mhm. lu ne clip bi yow gis nga nu mel mhm. clip bi gis nga koo xool xam ne du clip bu cong waaw dañ cee def lépp li war franchement sama ménagère da cee taxaw mhm. génnee lépp loo xamante ni dañ koy soxla ci clip bi mu def ko quoi franchement. aw ma fayam gàcce ngaa laa ma quoi bon je peux même pas citer des noms quoi mhm. parce que ñi jàpp bëri na. mais plus particulièrement Tafa Diop quoi moom mooy sama ménagère mooy sama grand frère xam nga nekk fi quoi affaire yi xam nga rek du yomb sooy débuté day tar ngay dugg xam nga dugg car rapide wàcc. day compliqué day mhm. mais franchement mu taxaw mu fépp. xam nga franchement clip bi mu participé ci xam nga joxe lépp lépp loo xamante ni soxla nañ ko ci clip bi muy ay yére xam nga muy xam nga muy lépp quoi franchement gàcce ngaa laa moo quoi. moo la jàppale daal yoo xamante ni hmm. moom tamit million de vues <laughs> na il faut ma yi xale yi am si YouTube bi waroon na jël xanaa million jox la nga clip. non bés jàpp na ci publication mi ngi publier ah, affaire xale yaa ngi sinap. non Sénégal <laughs> Sénégal rek Sénégal est-ce que sax gënul kii affaire yi. gënal lan affaire ah? yi mu gën a dem. non a koy def. non xam na de vues yéen ko da ngeen bàyyi seen. mais tey jii xam nga ko am xolu ki ñaan du def loolu. du jël yëfu diw di ko partager wala mu jël yëfu diw di ko dugal di seet. ah non sa balaa naan damay ruube sax. <laughs> léegi non je yàgg na ma si loolu laa xam nga mun mu daf may woo wataay ne ma am géral li xam nga fii jëlal lii affaire yooyu noonu. jàppale na ah, noonu la. Ah. da dem ay étape à chaque fois ak fi ngay dem quoi à chaque fois xam nga ak euh, li ngay jàng ak expérience bi ngay am. Mhm. à chaque fois parce que man je travaille man man moom ay caaxaan moom <laughs> dama jee kiiwut. Mhm. franchement man moom lu dul liggéey rek franchement soo ma waxee leen lu dul liggéey waxuma dara mhm. parce que en li ma bëgg la ko ci musique sénégalaise li ma bëgg la donc nit ki. mais bi nag dafa ànd ak xaalis. di ngay mhm. solu di ngay am oto di nga. Mhm. xam nga. Mhm. voilà lépp rek dangay dem avec les moyens du bord. parce que tey jii mënoo def lépp wala nga jéeg saay bëgg fee mel ni benn Chris Brown <laughs> foo nga def nànk nànk nànk nànk nànk wan la yoon quoi nga bañ a yaaxamti parce que boo yàqamtee rek xam nga nit boo teeyee rek teewoon la yoon. boo teeyee rek teewoon la yoon quoi. Cherif ah, Fou dañ ne timbre am nga touche tuuti touche am sa clip bi. bon loolu nag c'est normal quoi mhm. parce que. ñoo arrangé son bi wala ñoo. sans pas son bi sax ñoo arrangé son bi mhm. mais ñooy jàpp ci son bi quoi dañuy jàpp ci son bi nee la non fii defeel nii defeel nii parce que ay grand lañ ay ay ay grand lañ ci musique man dama leen di man dama leen di roy quoi. Mhm. dama leen di roy di roy ñeneen ak ñeneen parce man ñëpp laay déglu ñëpp laay suivre mm-hmm. soo ma neexee sa musique ma fil ko dama lay déglu. Mm-hmm. TikTok bi dañ lay gis bi mm-hmm. nga reprendre yeneen chanson yu daju yu kii est-ce que loolu xalaat nga mu ubbi la porte benn jour kenn xool la parce que internet egg na fu nekk. acteur artistes yi xool la après nga def ak ñoom jiw pourquoi pas. non mais pourquoi pas. parce que xam nga tey jii ma jël benn son daj wala ma jël benn son Youssou Ndour wala soit Ndongo Lo wala keneen ndax keneen. Mhm. ma jëy ma jël ko replay ko loolu tey jii sama fierté la quoi parce que non dama naan xam nga tey jii exemple nga jël benn son Ndongo Lo wala nga jël benn son Youssou Ndour loolu la ko xam mhm. nga tey nga jël son yooyu noonu di ko reprendre. parce que ñooñu ça plaisir quoi. Mhm. ça fait plaisir parce que tey jii am na ñoo xamante ni peut-être yow mii kii mooy sa waykat daju mooy sa waykat kee son son diw da koo neex Kaalo di mooy sama waykat kii de vraiment dama sama waykat la <laughs> man ñëpp ñëpp sama waykat <laughs> xam nga tey jii ma woy benn son Kaalo mu neex la nga nga romb ko sama sama sama sama kii mhm. sama TikTok affaire yi neex la nga aimé mhm. wala nga commentaire tey jii keneen mën na commentaire ne ah man de dan son bii laa bëgg nga woyal ma ko nga tapé son boobu noonu xool ko même su fekkente ni mënoo ko sax xam nga nga xaw ko kii xam nga woyal ko ko pour bëgg lu ko neex quoi. Mhm. ñun loolu ñoom lañ fi nekkal quoi public bi. Mhm. ñooy suñu doole mais loolu tamit mën na la ubbi yeneen porte artiste bi ko way sax mën na la gis. Mhm. sa baat neex ko. mu éviter la. waaw loolu ça peut ça peut se faire. ça peut se faire euh, dernière question peut-être euh, look bi. Mm-hmm. ah da ngay tent sa bopp des fois nga jaune des fois gis naa ko rouge. <laughs> Eh mais loolu mu dem ak takk jaaro et tout. amoon na fi ay rumeur bu metti la nag quand même. Mm-hmm. rumeur boobu seetaan naa si benn vidéo ngay kaas. Mm-hmm. nit ñi luñ lay taxé ak yooyu noonu. fekk na loolu look loo jeune nga dañ see toll. Ah. Euh, look bi. tey mënu ngaa ñëw def noir. yëpp <laughs> amul tent amul dara. <laughs> <laughs> Oh, parce que musique ak loolu ñoo ànd ku ku bëgg Akra moom faa nga ñëwee Karim mhm. te parfois gars yi dañu loo xamante ne du leen wóor parce que xam nga mun naa bañ a tuur sax gars yi parfois nekk si net bi non daan dafa bënn baxan bi dafa lii yow gis nga ma sama baxan bënn ma ko. Mhm. bon loolu c'était juste des séances ay séances su shooting la woon xam nga ma def ko. Mhm. et bu jeexee jeex na quoi. style bi musique bee ko laaj ñu def ko musique bi moo ko laaj mais bon duñ ci ëppal quoi mais musique moo laaj loolu tey jii xam nga nga war a def benn clip boo xamante ni. am sa touche personnelle am sa touche personnelle wala nga war a am benn clip boo xamante ni da ngaa war a jouer benn role wala nga lett sa bopp yi soit tu fais quelque chose loo xamante ni mooy wax ci contexte clip bi wala contexte son bi comprendre nga. Mhm. parce que boo nee artiste rek man yaakaar naa artiste la quoi artiste noonu la fa def artiste moom li affaire li ngay li ngay joué lu mu laaj da ko war a def mm-hmm. mais après boo ci paree pare nga ci mm-hmm. man ci waaye correct <laughs> <laughs> mais tey boobu dan bi nekk ci scène wala dan bi ngay ci public mm-hmm. wala dan bi ngay gis euh, muy dox nii wala dan bi nekk seen kër du benn waa léegi fan ngay séntu sa bopp ci fan nga bëgg a fan ngay xool sa bopp lan nga bëgg a réaliser musique Mhm. bon li ma bëgg a ci musique bi nag bëri na trop <laughs> bëri na de. il faut bëgg a toll tey bu ñu dan fan la bëgg àgg. ci mhm. musique bi bon dan bëgg na dem tey jii pourquoi pas bay liggéey ak ay Chris mhm. soit Chris mooy sa fan sa dayoo. <laughs> je l'aime bien en tout cas. ay Justin Bieber tey jii pourquoi pas Wally Seck def featuring ak moom pourquoi pas xam nga. dépassé ko def leneen ak leneen mais dañuy topp ci seeni tànk quoi parce que ñoo lay won yoon ñooy say grand frère xam nga ci keneen man ñëpp man ñëpp man ñëpp man man ñëpp laay déglu ñëpp laay roy xam nga rek <laughs> ku ma fil daal je que musique dafa yaatu quoi. Euh, est waaw ma bàyyi. <laughs> ah waaw. lan ah. parfois ngay xam nga parfois nga nga nga nga nga njàpp Dakar bu sa sa gaale bu studio parfois nga njàpp ko loolu sax sedd na xam nga parfois affaire yi day tar quoi parce que xam nga rek bu la kenn xamagul ngay raam xam nga gars yi duñ la joxagum benn cër bi ci war xam nga léegi boo commencé prouver di di di di di demal sa bopp ñu gis ni kii ah am na lu ne ci moom foofu dina la commencé respecté dina la commencé xam nga dina la dimbali ci yenn moyens yaa ngi ni que di lancer benn message nit moom bul xaar kenn ci dara boo gëmee benn affaire bëgg ko non mais dem ci ba jeex après nit ñee lay fekk si par la force loolu ci dara. mës nga dem fenn concert dàq la loolu kuy artiste jaar na si man jéem naa yegg ay seen concert ban lañ la dàqee woon. <laughs> ban concert nga yegg rek ñooy booy wàccal bon. bari na de. ban nga bu la gën a marqué. bi ma gën a marqué moom bëgguma tudd ay. ah bu tudd tur nel bu concert bi fee la amee woon rek. bon concert bi géej waay la amoon quoi. ah kon <laughs> Serigne Diop te xam nga loolu yow Serigne Diop du la sax gis gardien la xam nga. gardien xam su la gisee nga ne xale rek. da lay gis nga nga ñëw xam nga naa bëgg way xam nga rek. te yow dangay ngay bëgg mais suñ la jànnee rek waruñu xaw la kii rek nga commencé jooy rek. <laughs> nga jooy dem ñibbi. nga jooy dem ñibbi wala nga jooy seetaan taxaw ci ginnaaw nag doo sax gis ndax gàtt. Mhm. mais amour bi ngay am. Mhm. après loolu da xam nga li tax yow ngay bëgg mel ni tey jii ñi ngay seetaan quoi. Mhm. da lay motiver quoi. loolu ma ay jaar jaar loolu ku ne artiste bu ne jaar na te te dafa métti artiste yi may suivre xam nañ li may waxe ci instant boobu dafay métti. yow nga bañ ko def rek. non jamais man moom moom <laughs> Baye Fall euh, <laughs> jàpp jàpp ma dara muy dara. je comme ça parce que on est tous des humains quoi. Mm. dalal la fii. Mhm. ah. Mhm. bi moom seetaan nañ ko et puis yi nañ dem xool clip bi nag. waaw ah, clip bi nice na bi neex na. <laughs> vraiment lan ngay tàggatoo. bon maa ngi remercier encore. toute l' équipe de hmm. Rock Team Music hmm. xam nga di leen wax ni que kontaan naa ci ñoom di remercier sama papa ak sama yaay xam nga di leen wax ni que kontaan naa gis naa soutien bi sama famille hmm. sama waa famille samay frère samay rakk samay vraiment samay tante et tout ça parce que franchement ñi ngi jàpp ci affaire yi ñoom ñooy sa base xam nga di remercier encore sama grand grand Tafa Diop mooy sama manager di sama grand frère di sama lépp yow grand dundal rek di remercier encore fans club bi di remercier fans club bu baax parce que tey jii lépp nu ñu mel rek yow la quoi di leen remercier bu baax a baax di leen wax ni que maa ngi gis liggéey bi maa ngi gis ni ngeen di doxalee gis naa ni ngeen ma bëggee. ah nañ gis yeneen clip yeneen vidéo yoo xam ne dañ ko génnee. bon dan xaar leen ko ci lépp. ci yeneen clip ci ay after work ci ay dîner de ci ay xam nga man je suis open pour tout le monde quoi mm. maa ngi ci lépp xaar leen ay clip ay album lépp rek xaar leen ko ci dan quoi ci mot ci style parce que <laughs> lu garaaw a ngi ñëw. <laughs> cin bi rek lañ teg muy <laughs> cin bi rek lañ teg. gàncax amul benn label bu la démarché. wala uh-huh. keneen ku la wax ne jàppale parce que moyens yi dafa metti kenn nga bëgg a financer sa musique. non bëri na. Mm-hmm. mais yow yaa xam nooy doxalee rek parce que tey jii xam nga rek <laughs> nit moom doo ñëw rek dugg ci benn affaire comme ça mm-hmm. déedéet dafa am loo leen ni liggéey am loo leen teg ci point liggéeyee ko quoi si. may ñu dara loo xam ne lu ne la xamu ku la talaayee <laughs> doon sama yaayu doom. sama goro yaay jiile wan ko sa tëmbile mu koy xal ngay sama goro yaay maak yow lu ñu daj teewul nga dem ba ma ginnaaw maak yow lu ñu dekku coono teewul nga ba ma sama gént nax saay na li ma gëmoon seey na li ma dund ci ay nax ku ma ko nettali nga jooy <laughs> kontaan nañ ci dalal la merci beaucoup. maa leen gën a kontaan. kontaan naa ak waaw. Ah. bu la ko daa ko bul nelaw. yow sama.